commune de Bambay nous ma cette très belle mobilisation cela montre encore une fois que Benno Bokk est majorité ici à Zassoum fii ci jëm me Ganda Mbaye nañuy voteel wane ngeen ni programme président Macky Sall moo leen ñor wane ngeen ni opposition amu fi place fii ci Zalsou Benno Bokk Yaakaar na ngeen xam ne bi mooy bi nga xam ne dafa beige mooy bi nga xam ne moo am bopp fas bi rikawaay bu leen ko jaawale

benn bok yaakar bu gañee Bambey danañ ko yek ndax projet yi bari nañu ji jaddu ñu bayyi ganna mbay duñu bayyi président duñu bayyi te président nak lu ñooñu wax rek loolu la wax kon nak ma bëgg ñun ñëpp ñu mobiliser waat duggaat ci kër yi porte à porte niko allah ji di waxé chambre par chambre buñu xép dara ah di nuyu nak ki nga xamantene li nit ñi wax bu feccum lire nexé ndey ja japp ci mbagge ya muy El ja di ambassadeur kon nag li ñu boole fii tey dafa yaatu mu di bennoo bokk yaakaar bi ñu bokk ñu am sas bu rëy alaaji sas boo xam ne président de la république Macky Sall sas ñu ko ne ñu ñu ànd gunge suñu frère Gana Mbaye fii ci commune Bambey dellu àndaat gunge suñu frère Babacar Ndiaye ci département bi ba ñu gañe ba naal yi ñu naroon Bambey suñu borom dogal ñu yeggali ko président teg ko ci seeni loxo ñu yeggale ko Bambey naat bokk ci ville yi gën a rëy ci Sénégal